السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيجي بوك جيلي يب نيجي بوك تالي بيب تيجي دائرة مقدمة الخدمة تيجي تول سرين عافية بوسو دي دائرة بوك هم نيجي عمله سرين بي بوله وان أكسرين منتخا سرين منتخا دي سنو كليفة دي سنو جورين بيجي سرين بي يكتي لجيو برابي تك كتي لخو بيت بتكار كتي لخو دائرة مقدمة الخدمة بير مي خاونك بير مي خاو فكنا تلي تخوي دائرة مقدمة الخدمة لب دفنا نيجو بنابي ndax waxtu wi leen sëriñ bi joxoon digal ne bu jotee nañu tëj barab bi bi waxtu woo jotee tëj nañ ko ba amuñu fenn fu ñu jaar bunt bi nga xam ne nag moo féete ak njenne njenne te ñu ñaanoon ñu ubbilaat leen ko ci bunt boobee fa la ñu jaare waaye jaare ci bunt bu mag bi bi mbir mi xew it woo nañ ñu biñ ñu woo jokkoon jokkoo nañu mboolem ku ñu war a jokkool def nañu mboolem lu ñu war a def taxawaay bu ñu ci war a taxaw ci guddi gi taxaw nañ ko waaye mënuñu ci dara ndax ba ñuy ñëw fekk nañ ñu ñëw ba dugal ko ba tëju ci biir barabu Cheikh Ibrahima te foofa nag la doon mën a tax ñuy egg ci ñoom duñu ko def te amuñu ci ndigalul sëriñ bi te mooy xotti war ma wala dajji bunt ba te loolu duñ ko def kon nag na ñëpp xam ne taxawaay bañ ca waroon taxaw lu jiitu bu ñu koy def def nañ ko ñeen ci waroon a jokkool jokkoo nañ ci ñoom waaye waxtu wi ñu ko defee ak ni ñu ko defee moo tax intervention yi ca war a mën a am ba tax du mën a am ca waxtu woowu doonu toon yomb ndax waxtu 4 heures 3 heures matin la jëm 4 heures du matin waxtu woowu woo nit jot ko sax jafe na yàlla nag baaxee nañu dimbale ñu ba kilifa yi ñu war a wooy yëpp bañ leen di woo jot nañ leen ña ñu a wooy ñun bañ ñu wooyee yàlla def na jot ñu biñ ñu jotee itam jokkoo nañu ak sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy doonoon suñu jëwriñ ci liggéey bi sëriñ Cheikh Abdou Latif jokkoo nañu ak kër sëriñ ba Cheikh Ndiaye jokkoo nañu ak sëriñ Cheikh Baara moom sëriñ Abdou Lahat ñun ñëpp ànd nañ dox ci ba ba ba ba li ba ni ñu defee li ñuy def ba noppi te dara mun ta sotti kon police itam kër sëriñ bi bi ñu leen wooyee yebal nañu leen ñëw nañu waaye nii la mbir mi deme amuñu fu ñu jaar fekk nañu tej bunt ba la ñu gàllankoor mooy leneen gàllankoor kon nag na ñëpp xam ne mbir mi nii la demee lañ ci war a taxawee taxawee nañ ko ci waaye loolu la yàlla dogal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki julli bokki taalibe yi ñu ngi leen di jottali nuyoo sëriñ bi jëmee ko ji jullit yëpp jëmee ko ci taalibe yëpp eh, dafa am mbir mu rëy moo xam ne dafa xew mbir moo xam ne itam musta musta xew loolu moo di lan weddi baatu sëriñ bi mu jóge nu it foo xam ne fu nu jóge kaw la fu nu te man mi wax ñaari baat yooyu fu nu jóge kaw la fu nu fu nu fu sëriñ bi la gën a jóge kaw moom sëriñ Cheikh Sidi moom la gën a bett itam moo di xëtt ndigalam loolu nag amul genn tooñ goo xam nit mën na koo tooñ kilifa gu ëpp googu muy tooñ goo xam ne nag ginnaaw moom la ñu tooñ ci xëtt ndigalam tooñ gu gu yaatu lay doon gu kawe ndax wa atasimu bi hablillahi jamia wala tafarraqu loolu suñu borom ko wax alquran la kon tooñ gi foofa lay tàmbalee tooñ gi tooñ sunu borom la tooñ sangu bindee fi la tooñ sëriñ bi la tooñ kilifa li kilifa yëpp la tooñ gi ñu tooñ sëriñ bi nag gën a ko jëmbal door jëmbal tooñ yooyu yëpp Euh, noo ngi dellu gannaaw di nuyu sëriñ Cheikh Jëmb mi nga xam ne mooy kilifa ñi jëf-jëf ji waaye euh, nañu tooñe sëriñ bi rek mooy genn tooñ gi noonu lañ ko tooñe muy xew-xew bi moo doon bu bu bu bu bu bu jullit ñëpp yëg taalibe yëpp yëg ko muy sëñ sëriñ Mouhamed Abdallah doomi sëñ Abdullahi Fall moo wàcc mu noppalu muy guddig big xam naa ñi tooñ nag ñoom xam nañ lu ñuy def ndax ñoo ko tey ndax tooñ googu yaakaar naa ne kenn du ci ëppale sëñ Modou sëñ Modou Abdoulaye Fall moomu nga xam ne a njabootam ñoo def jëf-jëf ji ndax bañu ba ba mu noppaloo mel nañ ne sax lu yëgle waaye ndigal néguñu néguñu néguñu lenn ndigal dañoo daal di nekk ci seen pexem bopp ñoom ñoomu neen dem ci barabu Seex Ibra seet fuñ ko fa waajale ñoomu neen nee na ñoo ko jullee denc ko foofa te dara weesu leen ca loolu tooñ gi dafa rëy waaye dara kenn du ca jiitu sëñ Ablaye Fall mi mi mi mi jëf-jëf ji ci sababam loolu man mii sëriñ bi jox ma ndigal ndax moom tooñ gi àgg na ko foo xam ne waxal boppam sax mën na ko tële ndax sori gum sori ci moom metti ko lool dafa bari sago waaye kon dana tàgg dana ko xañ sago kon nag noo ngi nuyu sëñ Cheikh Jëmb noo ngi koy siyaare di ko jottali kàddu yi nga xam ne sëñ bi moo ma jox ndigal ñu wax ko ñëpp déggandoo ko li ci am solo rek ñu xam ne tooñ ak tooñ am na ci yoon bi goo xam ne mosu fi am te sëriñ bi mi nga xam ne tooñ gi ci moom la jëm sori na ci moom lool ndax loolu ñàkk xamadi gi nga xam ne am na ci jëf ji kon mel na ne moom mën na li li li li li li defoon lépp ak li beesu lépp mel na ne ñooñu am na yéene yàq ko kon eh, na ko kilifa yi yëg yëg ne am na tooñ gu rëy gu xew ci liggéey bi ndax ndax liggéey bi wéy ci ndigal moo ci jitu kon na ko ñëpp na kilifa yi jëkk yëg ne am na tooñ gu rëy goo xam ne xew na ci liggéey bi te njabatug sëñ mu mu deb lay mu deb lay faal njabootam ñoo ko def na ko kilifa yi yëg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gannaaw Cheikh Sidil Muxtaar

ci yàq gu jëm ci taxale mbooloo mi loolu dara jiitu ko ci kon noo ngi seere sëriñ Cheikh Jëmb di ko jottali kàddu yooyu nga xam ne ci sëriñ bi la jóge ak naqaru bu rëy wu tiis woowu nga xam ne ci sëriñ bi la jóge te xam naa moom itam yaakaar naa ne naqar wu ci sëriñ bi am am na ko ci tiis wu ci sëriñ bi am am na ko ca waaye kon dañ ma jottali woon sëñ bi dama joxoon ndigal ma jottali eh, kàddu yu yëgle xew-xew bi muy xew-xew boo xam ne mus am ci yoon bi kon na ko kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci gannaaw Cheikh Sidi Mokhtar na ko ñëpp yëg te xam ne it dañu xam ne sëñ bi tooñ nañ ko tooñ koo xam ne ma si su ko koo tooñ waaye nag noonu rek la mën a demee tooñ koo xam ne ma nga jóge ca tooñ suñu borom tooñ yonent bi tooñ sëriñ bi

ginnaaw jottali loona ma xew-xew bi ci kàddu yi la ci moom dañ koy bàyyi ak moom ndax nun mën nu cee dolli benn baat yëgli gi rek lan lan lan lan kon euh, tiitaange it amu ci nag ndax to metti na lool rii na lool waaye sëriñ bi fàggu na lépp yàqu lañ di mën a def ci liggéeyam bii waaye kenn mënu mënu ci yàq dara nu xame ko noonu